23e journée championnat du Sénégal Linger de Saint-Louis dalal ci AS Douane ci dimanche gi Yamok, fukki fan ak juróom-benn ci juillet 2023 Moudi match bu metti boo xamante digante, doxoon na ci diggante ñaari équipe yooyee ndax lañ ca gën di bu ñu doon def Sen Digante, Girnak nag bañ a division bi la nga xamante ni moom la ba yëpp bàyyi boobe ca match boobee moom moo di dellu si joru Linguère di di Mamadou Ndiaye ñu gën ko xam ci turu Petit Dieng mu di attaquant bu Linguère de Saint-Louis ñu xamee talent bu mag bi mu am moom nag bi mu dellu see jóge ci blessure boo xamante ni daanaka mat na sax juróom-benni weer mu di accueil bu mu am solo bu mag boo xamante ni supporteru Samba Linguère yi daal di nañ koy amal yëkkati jóg tàccu wayal sax kenn ku ci nekk di tëgg ba sax ñu di ko wayal ay turam lépp. rek ngir wane mbégte mi nga xamante ni ñoom supporteru Samba Linguère yooyu lee am nañ ko ngir bi ñu gisaatee seen attaquant bii mu di nag ay moment yu fort yoo xamante ne dina des sax ci mémoire ki nga xamante ni moom moo di footballeur sénégalais bi nga xamante ne talent am nekk na lu ñu ràññee loolu yi nga xamante ni dem na sax ba waral ko mu bokkoon ci sélection u yi nga xamante ni ñoom ñoo demoon Jeux africains en Égypte moom nag bi mu duggee en cours de jeu ñu dellu siwaat gisaat ki nga xamante ni moom la moo di Petit Dieng mu bokk bu baax sax ci victoire bu rëy bi nga xamante ni Linguère am na ko mu di 2-0 euh, boo xamante ni moom la gaañ ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo di gablu yii na mu ko yàgg du dafa ci ay prise de balle yu rafet yu jek yo xamante yag nañ ko ragné ci footballam tamit ay dir yo inspiration bi yatuna ngirnak lool ngir nak li nga xamante mom modi Petit Dieng mi nga xamante domi ndar yi yag nañ ko xam ay passe yu am solo bokk na ci bi nga gis nañ ko mu joxe ko sax ci dernière minute yi nga xamante mënon na tax linger de Saint-Louis daal am 3 troisième but bi nga xam mom moom moo tax Linguère am lo xamante dina gëna nek avance bu confortable jëm fin de saison bi public bi dal di wane wat mbekté mbégte wat bu baax kii di domam bi di Mamadou ndjay alias Petit Dieng ngir nak noné nga xamanténi ni bégalee na leen ginaaw nak jamono bu yàgg bobé nga xamanténi tok nako bokul sax ci équipe bu Linguère de Saint-Louis bi match bi jeexee Mamadou ndjay alias Petit Dieng dal dina addu ci suñu kanamu caméra. mbekté rek mbekté rek lañuy andal ndax yagon matna ay mois nekk ci terrain footballu football et tout ñu dara kon tay su suñu borom dogalé ñu ñëwaat. amaat suñu bonne sante ba nekkaat si biir terrain mbégte rek lañ siy àndal quoi en plus ñu ñëw victoire ñu ngi sant rek sant Serigne Touba rek. public Ndar moom aw ma seen fay ñoom muy neex muy naqadi ña ngi ak man et tout moment ma passé xaw na meti si bis si gis-gis mais xam nga rek bàyyiwun ma benn yoon ña ngi ma doon jàppale et tout donc su ma ñëwaatee nii ban may supporté di ma tàccuwaat loolu mbégte la rek si man santaat yàlla rek dolli ko sant liñ santoon. non di gagné rek di gagné rek ndax fi ñu toll nii fi ñu féete baaxul daal léegi ma ñaari match yu ñu dese essayé gagné rek après ñu xool yeneen équipe yi nu ñuy def mais ñun moom mooy li nu war mooy ñu joué essayé gagné qu'importe ak nu ñu ko mën a amee baax nañ mais ñu joué pour gagné joxe lépp après lu yàlla indi ñu xam ni loolu la quoi. entraîneur bu Linguère de Saint-Louis Abdou Majib Diagne moom it tamit wane mbégte bi xamante ni na ko ginnaaw bi Petit Dieng dellu siwaatee ci biir groupe bi te jàpp rek ni li des ci saison bi mën nañ ca xel mu daal nii lépp rek dinañ ci am ndam ya ñu soxloo ak dellu siwaatu joueur bii di Mamadou Ndiaye alias Petit Dieng. Petit njëriñam mooy euh, indi na dara joxe na bal de euh, donc euh, dañ koy dugal ndànk-ndànk mu jàppaat forme di ko ñaanal mu gën a dëgër blessure bi wér ak jàmm incha allah mu ñëwaat si ay morom incha